fi dajale tey mooy yéen ñëpp xam ngeen ko euh, démocratie pour mu am il faut ñu di ko suqat li lii bokk ci li koy suqat nag bokk na ci justice justice boo xam ne bi ña koy def euh, muy avocat yi di magistrat war na ñu nekk ni ñu xarañ pour xañan xarañ nag il faut la ngay jëfandikoo nga xam mooy lan looloo tax seetlu nañ ci jamono yi ñu toll nii euh, en plus droit bi nga xam ne mooy suñu droit interne ñu tàmm ko miin ko daf ci am luy yokk bër bu yàlla sakk ci jamono yuy nekk mooy li ñuy wax droit communautaire mooy li ñuy wax euh, convention international yooyu yëpp daf droit yoo xam ne yi dafa am ñu di ko jëlee bitim réew te ñun ñun di wàcc sukkandiku pour mën a fexe ba lépp loo xam ne yelleefu doomu aadama la ñu mun di ko saxal di ko wéyal loolu nag buy am war nañu ñun magistrat avocat ñu faral toujours loola ñu di sa former pour xam ko pour ñàkk ko réeree parce que loolu mooy mën a suuxal état de droit mooy mun a suuxal démocratie loolu mooy waral formation bi ñu def tey. Euh, lu ni mel guleet la est que Sénégal euh, dafa am loo xamante bi tey daf fee jàmp lu tax euh, ngeen ah. amal lu mel nii. du du sax guleet parce que moo sa fi am. formation ci euh, droit de l'homme moom yàgg na am ci miim réew waaw waaye nag formation bu demee nii édition spéciale bi mu ngi door am am nañu yaakaar ni ñu ngi koy ñaan yàlla na ko am mu sax parce que njëriñ la ci ñun ñëpp lu mel ni bu saxee dafay tax bu fekkee ne avocat ak ñu ngi daje ak ñoo xam ne seen xaman dafa màcc ci maanaam droit de l'homme ñu mel ni ñoom professeur euh, euh, Touzé dafay tax magistrat yi di gën a xereñ ca liggéey ba ñuy def loolu tax lu mel nii ñu am yaakaar ne njëriñ la ba tax ñu ñun ñëpp ñu sóobu ca di ko defando loolu tax mais du loo xam ne lii <laughs> lu bees la voilà. dañu dañu dañu invité ci daje bi nga xam ne euh, premier président cour suprême moo ko euh, moo ko sos moom ak fondation René Cassin ak fondation de Neumann alors euh, ñaari fondation yooyu seen liggéey en général mu ngi jëm ci li ñuy wax droit de l'homme alors donc biñ ñu invité bindal ñu ni justice et état de droit dañu ne ñun dañuy ñëw pourquoi parce que justice ak état de droit lu ñuy waxtaanee di ko doxal tous les jours la mais dafa mel ni comme jàkk wala jumaa boo xam ne bi yeggagul dire chaque jour bés bu nekk rek bés bu yàlla sàkk dina soxla ñu teg fa benn climatiser teg fa benn ventilateur teg fa benn sijaada alors mooy waral comme xam-xam du doy xel du doy suñu ne ñëw leen ci Euh, waxtaan bi dañuy ñëw parce que li leer mooy ku fi ñëw yendu fi di nga fi jàng dara di nga fi jëlee xam-xam mooy waral donc euh, comme ñun léegi euh, charte yi nga xam ne moom moo ñu ëmb moo ñuy yilif car charte yi dañ ci bind ni que dañoo am obligation formation continue maanaam nit ki foo tollu da nga war di jàng da nga am di gëstu di xeltu mooy waral bu ñu invité ci yu mel ni dañuy ñëw fii li suñu réew li waral lu mel nii est-ce que dafa am lu sooxe mbaa ay rëq-rëq non non loolu amul jëm amul benn lien ak euh, lenn loo xam ne xew na wala xewul c'est-à-dire comme ni ma ko waxee rek yoon daf ñu sas ni fu ñu toll nañu continuer di gëstu di jàng euh, mooy waral si tu veux écoute euh, ñu daje fii je veux dire mais même séminaire yu mel nii sax su ma yeboon nii kenn du ni guleet je veux dire du benn du ñaar du ñett je veux dire am nañ ci plusieurs fois man mi di wax yow nii comme bâtonnier Euh, am na benn atelier boo xam ne bi fondation maan moo ñu ko defal ak fondation René Cassin suñu euh, bërëb bale suñu màkkaan ma booboog léegi peut-être ñeent wala juróomi weer ci ginnaaw donc euh, effectivement dañuy continuer jàng tout le temps maanaam lii daal su ma yeboo ni lu normal la boo xam ne lii moom la ñu waroon def dañ koy def